muy candidat ci élection présidentielle yu 25 février amadu Amadou Gaye mi njiital union des indépendants du Sénégal UNIS daal dina wone kon rek mer gi mu am jëm ci lu ñu duppee ay forces occultes fii ci réewum Sénégal ca ba mu delloo di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ak Antoine joom ngir ñu daal di indi ay preuve yu leer jëm rek ci loolee ñu xamal askanuk Sénégal ni ay forces occultes dañu am fii ci biir réew mi kàddu yooyee mu ngi ko yëkkati gannaaw ba ñu ko doon dalal ci émission bi bi di grand oral ci réew mi TV ca ba mu delloo ci ay doom moom Amadou gay daal di xamle ne jamono ji kon dañoo engagé wu ci wàllum politique gannaaw rek ba ñu gisee ne kon ay jafe-jafe yu métti ñoo daal di am jëm ci doxalinuk politique gi nga xam ne moo am ci réew mi rawatina ni nga xam ne noone la ñuy jëfandikoo lii di alalu askan wi mu ne loolee kon moo daal di tax rek ñu daal di taxaw ngir mën a fexe ba indi kon suñu taxawaay jëm ci réew mekk na mu war mën a doxee wàllum napp meek mbéy mi gannaaw rek ba mu gisee ne ay sooxe am na jëm ci fànn boobee ci noone mu ne kon dañoo bëgg a fexe ba indi rek ab environnement politique boo xam ne kon dafay mucc ay ayib donte gis nañu ne am nañu ab opposition bu taxaw waaye opposition bi dafa mel ni fantasiro gi nekk seenu ko diggante dafay gën di jur saa su nekk jafe-jafe mu ne sax ñoom daal di woon nañu génnee ab livre boo xam ne day daal di fësal rek jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ci indi ay saafara ngir mën a fexe kon baskan wi gën cee gis seen bopp ci jamono joo xam ne ñu ngi waajal ngir daal di li nga xam ne moo di ressources yi am fii ci biir réew mi ci waxtu goo xam ne daanaka askan wi dañoo réeroo kenn déggoowut ak moromam mu dellu xamle moom Amadou Gaye ne lu ni mel nag faaw ñu daal di ci indi ay solution ngir mën a fexe ba askan wi déggoo su ko defee mbooleem li nga xam ne rek moom lañuy ñuy di liggéey ci biir réew mi askan wi mën cee gis seen bopp bokk na ci tabb moom lay gën a faratal mu di lu ñeel wàllum xëyu ndaw ñi ak li nga xam ne moo di agriculture bi gannaaw ba mu jàppee ne foofe mooy buntu bi mën a tax réew mi suqaliku dem na sax ci ay kàddoom moom Amadou Gueye bay xamle ne kon lu toll si ñetti téeméeri ndaw ak juróom fukk dinañu leen amal ay xëy waaye itam dinañu daal di jox chance ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi teg si itam gën a dekkil wàllum koom-koom bi ci maanaam relancer ko kon dafa laaj bu ñu sukkandikoo ci amadu Gueye ngir ñu mën a fexe rek ba daal wàcce dënn yi nga xam ne waaye taxawu jeunesse bi gannaaw ba mu xamle moom njiital unis ne jeunesse bi ñoo yore ëllëgub Sénégal kon dafa laaj rek ngir mboolem luy seen wareef ñu jox leen ko teg ci itam li nu mel bu ñu ko defee dina tax ndaw ñi doon fëq di dugg ci gaal yi di jaay seen bakkan ngir mën a utali ji bitim réew mujje des ci biir réew mi ndax mboolem lu ñu nar a uti ji bitim réew dina fekk rek mu daal di yemb ci réewum senegal